ponk bu njëkk bi ñuy waxtaanee CAF Awards la le Sénégal rafle la mise gis nañ ni démb daal Sénégal daanaka ci lépp lu ñu ko nominé woon jël na jël na jël na mise bi jël nañ lépp paasal. mais mais mais Chérif. Mm-hmm. Chérif Sénégal nañu sant suñu borom de. bu baax équipe nationale Sénégal daanaka <coughs> lépp la ñu mm-hmm. bu mm-hmm. gën a rafet Pape Ousmane Sakho. kooku na ko Sénégal ay bàyyi xel. dëgg la yàlla bu ko cat dugg mu nga nekk fële ca Tanzanie. mu ngi toj Tanzanie te Tanzanie boo ko waxee Tanzanie boo ko waxee gars yi dañu naan. Mhm. Tanzanie championnat Tanzanie comme Europe ay stade du soixante mille personnes. mu fees dell. Mhm. club ba ñun suñu club yi amuñu loolu. Mhm. Pape Ousmane Sakho Pape Matar Sarr plus jeune joueur espoir Aliou Cissé meilleur coach Sadio Mané. de l'année. Ballon d'or Ballon d'or équipe nationale Sénégal. macha allah. macha allah daf yàlla na yokk te jig ñu. allahumma amin vraiment léegi nag jël nga coupe. Mhm. boo jëlee coupe nag da nga kaa téye. ah coupe bi incha allah il faut ñu téye ñett yi ñëw ba ñeent ya incha allah bala ca topp. Mhm. coupe du monde faw ñu jëli ko incha allah. toog bee waral ay gàllankoor boo ko jëliwul mhm. tamit boo ko jëliwul tam sori. ñi fi ne seen chance la faw ñu def ko. daf ñoo war a gën mais li li Chérif wax naa ci bàyyi xel. bayre bi. bayre baa ngi fi sax te amaana cafka bayre bi moo xaw a des. xorom see si waaw nan ko lenqali rek. mais mais yi ñëw dàq. incha allah félicitations à toute l'équipe <laughs> vraiment sa sa Chérif. gis nga yàlla ni mu mënee def ci àdduna. dëgg moo tax nit warul jaaxle nit dafa war a constant. Mm-hmm. Sadio Mané danaan nekk fii yi kii am problème mu deux cent francs pour dem entrainement dégg nga wax. dëgg jóge Bambali ak na mu fa jóge tey Sadio Mané day nekk États-Unis ak Bayern Munich war a jël si trophée bi Maroc Maroc Allemagne yi nag jet privé ngi nii mhm. demal mu indiwaat la nga àggali sa séance mhm. ñu indiwaat la teg ci pare la demal noppaliku ji yàlla mooy mhm. wane ni nit waruloo ñàkk ba saalit waruloo am ba naa ko. wallaahi bismillah. wallaahi ba pare ne ko ne ko ne ko bi muy bi mu waree dem euh, États-Unis parce que dañoo war a am match ak match Manchester euh, City. ñu ne ko demal nga noppaliku ji. parce que demaat ba États-Unis dafay xaw a métti. pour mu gën a mën a am compétition. loolu voilà c'est à magnifier ñu ngi koy féliciter di éli félicité tous les Sénégalais également euh, Chérif. waaw ayca ci Sénégal. non logique la. Mm-hmm. logique la logique la xam nga. bu ñu yow nag football da nga ciy sawar nag. ciy sawar lool waaw xam nga mm-hmm. bu ñu waxee ne Salah. bu ñu waxee ne Salah. ak Edu. Mm-hmm. ak Sadio Mané. xamoon nañ ne logique pour logique xanaa xamoo. même Salah sax bële paase ne. Mm. man pour man Sadio Mané. ñett moo ko moomoon ñett ko waroon a def bangale. wallaay mais bon peut-être moom xam nga rek moom jour la boo xam ne bokkul ak El Hadj Diouf yaru na te nag yooyu aussi sa waay. dafa bokk ci sport de. ci joué. gis nga cas geeg xorom soosu. <laughs> da caay-caay gi. caay gi day am ci làmb am ci politicien am ci woykat yi. mooy cas gi. cas gi cas gi. moom moom moo koy xañ yenn saa yenn quoi yaru baax na waaye daal xam naa ni daal. waaw réglé daal ba mu ëpp daal ci seen milieu yooyu nga xam ni dafa xaw a jege showbiz. day am sax ci ëttu politique bi. non non non xam nga. fii fii. merci beaucoup mooy caski mooy feeling bi xam nga mais Sadio Mané double ballon d'or loolu bettul kenn. déedéet. ballon d'or européen bii nii ñuy def nii. Mhm. li tax sax coow li fi mu nekk nii temps yi mhm. rythme bi xaw a kase. Mhm. mooy Benzema soo xoolee quart de finale demi finale finalu Ligue des champions. xam li ma la li mu def contre Chelsea. li mu def contre City. li mu def contre Paris Saint-Germain. di jëlee équipe bi ci ay remontada yoo xam ne maar di taal rek mm-hmm. ñu bëree bëri ne lii mbiram la dugg na fekk na mais Sadio def na loo xamante ne nii ah lii daal bettul kenn équipe nationale bu jël coupe d'Afrique nag mm-hmm. xaw ma man bu nekkul meilleure équipe <laughs> d'Afrique ku muy ne <laughs> entraîneur bu jël coupe d'Afrique ku ko mat kan mooy gis ne naan des ba mën a daw. logique la en principe ah, logique la waaw moo tax affaire dafa mm-hmm. continuer noonu. léegi nag comme sa waay ni mu ko waxee tombé mooy waral ay gaaf. kilifa yii. la yàlla dogal na ci ñoom la tombe ñu daal di koy téye Ablaye Diaw nee na équipe boo ñëwee fekk ko mu jël coupe déglul dëgg ngay mhm. autorité wala ngay entraîneur bu bees mhm. nga ñëw fekk ko mu jël coupe coupe bi da nga ko a jëlaat mhm. soo ñëwee fekk ko mu dem ba final ñu gañe ko équipe ba da nga koy delloo final waaw ma ne mën a ne nga yóbbu ko final mu perte ñu le lu mu bon bon bon delloo na ko fa mu fa mu ko jëlee nga ñëw fekk équipe mu toog demi final nga ñëw jël équipe ba demi finale da nga ko faa war a delloo de. xaw ma ndax di nga romb nag mais daal en tout cas fa nga ko fekk moom delloo ko ca. loolu lañu naan ku yokkul yaa wàññi. waaw léegi nag logique pour logique aussi. Mhm. coupe d'Afrique bii di ñëw. Mhm. ah ñun daal li ñu jàpp daal ba pare heureusement changé wuñu entraîneur. Mhm. changé wuñ dara. yokk yokk waaw du noonu ah. ca topp moom dana. félicitation jërëjëf félicitation à tout le monde euh, ça Aïcha. sànni sa kàddu waaw euh, félicité Sadio ak ñi ñu primé ñëpp. Mhm. waaw je pense que man li ma gën a neex ci cérémonie bi nag. xam naa ne. Mhm. mooy fi muy jëlee kàddu ndaw si naan ko in English. mun ko wolof. non foofu moom su ma mënoon dugg ci biir télé bi yëkkati loxo Sadio Mané ca kaw. dama koy def. c'est-à-dire que amul amul pour choisir ko ban langue lay wax. Mhm. Sadio day wax wolof day wax français day wax ah. anglais. mais gis nga bi mu nee wolof sama xol bi. moo doon moom sax soose laay laa ko wala joolaa. sama xol bi comme wanagu mbot. li booy di wax wanagu mbot. ba pare dédié ko à la jeunesse sénégalaise. xoolal non du ma ne kaay kaay ma wax la benn day làkk làkku dëkkam parce que dégg anglais wala français. wala arabe. Mhm. mooy les langues yi ñu tuddee les langues officielles là. Mhm. mais c'est pas donné à n'importe qui. Mhm. bu doon Sadio Mané dafa jógee Bambali Gayen un an rek mu def ko naa jël affaire bi mu ñëw nga ne ko in English. lan la lay làkk. vraiment dafa te du mu ngi nii dem na Allemagne. voilà ma la fay làkk. dafa déggagum dëkk bi. may ko tuuti ca présentation ba sax. wax na benn mot mot en allemand pour te dire comment il est. Ah. Mm-hmm. macha allah ah. macha allah. nañ dimbali nit ñi Afrique lañ ne nga ñuy jéem a imposer ay làkk nasaraan ak ay làkk anglais yooyu eh, anglais ki nangam sangam alors que yow yaa ngi woon Maroc. <laughs> ah day bi nit ñi nit ñu ñuul ñi moo tax Sadio Mané li mu ko wax da ko waroon làkk olof. billaay wala mu làkk fa soose wala joolaa bu gaa yi déggul tamit. mu paree traduire ko. <laughs> loolooy dëgg. mu paree jël avion wala El Hadj Diouf ñëw ñëw traduirel gars yi. Mhm. gis nga ko ca saal ba noonu. muy woy bojo bojo yee noonu Diouf jéem kontaan naa ci moom. <laughs> wallaay wallaay sa à dire que mhm. sans complexe quoi. waaw c'est-à-dire que ñun il faut que parfois ñu dindi complexe bi nekk ci ñun. du dañ face à l'homme blanc que mu nekk tubaab que nekk naar. gëm suñu bopp. Mhm. pousse mu jëm ci kanam démb Sadio loolu la wane. bu ko ñëw directement wax anglais. mais bi nee wax mais mais mais soose xam nga xol dafa sedd guy. xam nga soose loolu lan moo koy def. waaw xam nga lu koy defa ah? machine bi ne ci kanam suñu njiit yi. Mhm. ñooy incarné loolu ñu topp leen.